Nar làmb mais dama koy ñëw ak moom damay ñëw moom ci benn combat boo xam ne nii combat am solo la muy diggante ball Balla Gaye numéro 2 ak Eumeu Sène Nar Eumeu Sène daa bëreeg Balla Gaye numéro 2 daan ko ñaari yoon. mbër ki seetaan nga seen jàkkaarloo bi amoon TFM. nga gis ne. waaw nga gis Eumeu Sène ak Balla Gaye numéro 2 yow sax xàmmeetoo leen. ay élhage ay ay responsable mag lañu xam nga boo demee mag soxor day wàcc quoi soxor bi day jug day génn. lépp loo soxore soxor day fay quoi moo tax da mag dafa baax lool. mais combat boobu combat Eumeu Sène Balla Gaye numéro dafa mel ni daa am loo ci a wax. mooy dama koy waxaat rek. waxaagu magu meedamo kay waxaad waxaad mooy ñëpp xam nañ ko mooy que Balla Gaye kenn wadiwo lu mu mel ci lam kenn wadiwo kenn du wadi Balla Balla Gaye champion la mun na bëri mais lu mu jëlee combat bi ak date buñ koy bëgg a joxe nii bu ko Balla Gaye def ma xam ne day saboté supporter yi parce que du yoon Balla Gaye mënul daan mënul daan ëmma seen ci at bi nii nii deux mille vingt trois bi mënu ko daan. na lamb dégg li nga wax nga ne. Balla Gaye dernier temps waxuma ci communication bi de ci entraînement bi ak ci bagage bi indi ko su ma waxee bagage côté mystique quoi. waaw kay. bi du mot. Mm-hmm. même bi tamit du kon. c'est-à-dire jëlatul affaire bi au sérieux comme avant quoi léegi comme ay genre dafa bàyyi quoi wala patron la wala sawara ci ci ci kii communication bi rek moo des te communication bi sax dafa set léegi dafa set nekkatul comme communication bi tàng boobu avant nii def nii def nii defatul noonu te Eumeu Sène xam ngeen ne Eumeu Sène yéen sax xam ngeen dafa pare am na doole te pare na te Balla Gaye pare gul te entraînement ñetti weer ñeenti weer billaahi daanu ma seen ci Balla Gaye nii entraînement dem UNICEF yooyu def foofu ñetti weer nii loolu du daan ma seen Balla Gaye il faut que mu entraîner sept huit mois ba pare li ci ëpp Sénégal la koy def Sénégal il faut mu def ci juróomi weer muy entraîner biir Sénégal ci contact toj biir bi toj fépp bu mu wow koŋ taxaw il faut mu il faut que mu entraîne lu yag yag yag yàgg pour mu mu mën a daje ak Eumeu Sène mais bu fekkee ne Balla Gaye barki démb dajoon ak Boy Niang Balla Gaye rek xol bi rek moo des mais yaram bi ak ki ki watul il faut que mu liggéey moo tax bu nangoo jëlee date ci ci ci année bi nga xam ne de day saboter supporter am quoi bon mu ko nangu parce que du daan Eumeu Sène du ko daan maa ngi dégg sa waajur sax Moustapha la tudd xaw ma مينيموم دا فرغال كروم مسين بو مراغال بون كو تيك تي 23 بي مسين دا كاي داف كاي غاني دما دك مصطفى يا مصطفى لا تدو كي نغي دون واخا سا دما فك سين وقتان تي مودي مونان دا فرغال ها متار متار متار متار مي دا فرغال كروم مسين مودان مودان مودان مسين دودان بو نيو بريتي 2023 بي مسين دودان موي دانا واو واو تبا لاغي borom jom la dafa war a dem entraîner mu wóobu parce que ñett ñett kan du wax buñ la daan ñett yoon mais naar naar man li ma li ma gis mooy dafa mel ni da ngaa jàpp ne Eumeu Sène dafa raw Balla Gaye numéro 2 ci entraînement guddi yi ñu toll Eumeu Sène dafa dafa jàpp day entraîner moo ko raw Balla Gaye du entraîner day kii rek mu ñëw dernière cinq anne yu mu jëpp Balla Gaye du entraîner depuis bu mu gàddaay ba ñëw ah, après mbaam boobu entraîné ko day jëm laal indi sab rek ñëwaat wala dem tukki ñëwaat ñaan entraîné indi na doole indi na indi indiwul doole Balla Gaye bu indi doole da nga koy xam day Balla Gaye bu indi doole ni muy mel jool sew ba pare da ngay da day ñax buy waxee da ngay xam ni kii bu le naa nii da ngay xam ni kii lu muy wax ci moom la nekk bu indi doole day ñuur kuk ba pare njool da ngay gis kii bi day génn دخل دقيقة كوبي دقيقة نحن كي عندنا دولة بالغة بوكس نحن بير بي دفع وقت بقاري موي وقت وقت بوستد جو هنا دفع شانجة كوميونيكاسيون دفع جن آش دولار دولة بمودس كي إنرجي بوبو بورا مو مو مو مو عمتول أك قلاجي ندم أود قلاجي نود قلاجي ndax sànq ni ma la déggee dafa mel ni naar làmb da nga bëgg Balla Gaye de Eumeu seen da koo raw ci doole. raw ko ci doole raw ko ci Eumeu Sène moo ko gën a daal instant bi Eumeu Sène moo ko gën a daal parce que Eumeu moo ngi suivre mu ngi suivre mu ngi ci rythme. rythme bëri bi ak rythme média yi ak mbëri c'est-à-dire mu ngi ci biir quoi mais Balla Gaye nekkatul ci rythme boobu leneen xaw ma ci business leneen xaw ma toppoo nga ko daal mais lan moo tax lan moo tax gisoo ndamu Balla Gaye de at bi nga gis ko ci at ba ci topp instant bi mënul daan Modou Lo mu mënul daan kii mënul daan euh, Eumeu Sène moo ko gën a pare fuuf su bëgg yu bëri suba sax mu bëri atum daan ko su fekkee dafa bëgg a jël revanche dëggantaan jaay te dafa war a am responsabilité côté boobu dafa war prolonger ba ay février sax avril année prochaine اي 8 موا 7 موا 9 موا مو باختم مدام اوتي دولا كونتاك كونتاك كونتاك ببري بمو وو سو غانيو كونتاك ببري اك مبر يوم ما يتاخ مغنا دان ام سين ام سين بوكو خالي رك nga xamni buy waxe kar ma ngay gis be kan ba invite ko ام سين ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله mais mais mais mais naar yaakaar naa ne Eumeu Sène nekk na grand champion ci wàllu làmb Eumeu seen nekk na mbër moo xam nii mbër mu gëm entraînement la Eumeu Sène nekk na mbër moo xam ne nii mbër mu làmb di bàyyi xel na mais Balla Gaye numéro 2 nekk na mbër moo xam ne nii mbër moo xam ne làmb dafa soxlawaat gisaat Balla Gaye 2 bu bees làmb dafa soxlawaat gisaat Balla Gaye 2 bu am coow làmb dafa gisaat Balla Gaye 2 bu nekk ay dynamique de victoire mais tey jii Balla Gaye 2 bu war a préparer Eumeu Sène ki trois mois ak nga ne Balla Gaye 2 warut a préparer Eumeu Sène ki trois mois na Balla Gaye 2 préparer Eumeu Sène ci huit mois mooy saison bee di ñëwaat ci la Balla war a bëri Eumeu tey jii lan nga gis ba ne Balla Gaye 2 daa war a préparer Eumeu Sène ci huit mois. gis nga li ngay wax yëpp mën na nekk Balla Gaye mën na ñëw ne kaat beneen Balla Gaye bu bees mën na nekk parce que xale la xale la te provenant mm-hmm. titre yëpp am na ko mbër yëpp mën na nekk mën na ñëwaat. Mm-hmm. mais ci kaw mu mu gëm coone boobu mu war mu dal ko daal comprendre pour mu ñëwaat il faut mu daje ak coono bu bëri bëri bëri bëri te moom nangatul loolu dafa mel ni sunnatul quoi mu ngi dund quoi cest à bu ma wax sunnatul mooy utetul dara ci la mu daal xaalis bi am na bayre bi am na léegi il est obligé seulement mu communiquer ak ñi waa média yi rek waaye ba léegi bu mu doon déggantaan jaay champion. mais yow dafa mel ni naar lamb da nga bëgg gisaat Balla Gaye 100 pour cent ci lamb pour mu am il faut que yéen yéen yéen yéen ñi di wax bàyyi leen di mandu gis nga Balla Gaye kenn contre wu ko man mii wallahi alim aw ma benn nit foofu Sénégal dama ko bañ ci sama xol mais gis nga booy wax da ngay wax rek te yàlla tax nit boo koy wax lu koy reetaanloo rek wala lu koy neex da nga koy juumloo il faut qu'il y ait une gagne de waklu balage warade bulen mandu dina balage champion le bisam lol yeb deug la wallahi bisam bis bu reey la te buy bari da ngay content man wax naa ko ba taay da lay cadré dóor la da lay wax nii laay def mu ñëw dafa lëkk bis ba mais Balla Gaye Balla Gaye boobu moo nekkatul fii il faut ngeen wax nekkatul mais mais mais mais Balla Gaye boobu Balla Gaye boobu dafa am lu nekkoon naar lamb ba tax Balla Gaye nekkoon benn grand champion te jii pour Balla Gaye jël soit ci làmb naar lamb Balla Gaye ci ban méthode lay jaar ndax Eumeu seen nekk na champion boo xam ne ci làmb lépp lu mu am entraînement moo ko may pour Balla Gaye nag jël soit sànq da nga ne Balla Gaye de warut a mën a jël combat bi di ci bëri ki trois mois loolu ligne rouge la nga ci def ta nekk Balla Gaye bii dajeeg Eumeu Sène war a nekk Balla Gaye bu pare Balla bu dellu sorti ay entraînement Balla Gaye buñ gis mu contact benn 4 mois 5 mois te lépp ci combat ak Eumeu Sène du ko préparé bitim réew Sénégal la koy préparé ndax combat bu combat contact la naar loolu lan moo tax nga wax loolu. gis nga Balla Gaye nekk ci yaramam Balla Gaye ñaari problème la am fu mu nekk ñaari problème problème mystique problème entraînement dañuy dañuy wax ni Balla Gaye day خيت واحد دام فرانس لا كلا تونيخ الله يتعزني غير تد لول دو مو دو مو دولا بري دولا بري كوف نقدم تديني مي نار نار لما ولا وخنا يبان لك دام بور الميسيك بالله دابا عطيت الميسيك تا الفوق مو الفوق مو البيتي قدام سيت هاد نيانا نيو باس نيو اندي كلو باس مو نيو دوبو افير باسكو فوما انا كني دنكو جاب جيسنا بالا جاي دنكو جاب جيسنا مان شريف لا shérif laa te xam naa mbër gis nga ba Balla Gaye dañ ko jàpp moo tax sawaratul noonu média bi moo koy topp noonu rek mais Balla Gaye su doon sagom pare na sax ci affaire yi yëpp mais bàyyi rek di ko topp ak yooyu moo tax mu ngi ci biir mais buñ ko jàppuloon rek yow gis nga Balla Gaye ta bu mu dem gàddaay ñu daan dem gàddaay ñëw indiwaat leen defar ñëwaat affaire bi koppuwaat il faut mu dem defar bu baax a baax ba pare entre nar mais mbër bu ñu jàpp ci mystique mbër bu ku ñu jàpp ci gàllaaj yow nan nga def ba xam ne Balla Gaye 2 dafa am ay liggéey yu bon yu nekk ci yaramam nan nga def ba ba xam ne ba Gaye numéro 2 daa war a dem ci sëriñ yoo xam ne mosuñ koo ñaanal ci àdduna bi ñu ñaanal ko loolu. grand fadam loolu bëgg naa mu leer balaa ngaa dem. grand fadam yaa ma gën a xam lam yaa ma gën a xam Balla Gaye 2 man nag damay bëgg a wax mais sama olof bi moo moo tax mënuma génni ay moo ko. macha allah demal demal demal nangu du ma mën a génnee moom ci olof bi xam nga dama ko jëlaat mais yow xam nga Balla Gaye bu baax a baax. xam nga méthode. Mhm. alpha euh, Balla Gaye lu mu doon bëri. changé na wala changé wul. ndax changé na. Mhm. sa diggante ak yàlla changé na wala changé wul. Balla Gaye bi ñu xamoon ak Balla Gaye bii du benn. ci bëri ak ci wax. lépp changé na lépp changé kon selon yow sportif nga yow mbër ancien mbër yow ancien mbër nga am nga bëri balaa ngay dugg ci affaire bi daam nga bëri xam nga mbër bu baax a baax lan moo waral lool seet mhm. doon yow question bi man maa koy jox yow lan moo waral lool gis ne waaw man man li ma gis mel ni Balla Gaye 2 dafa am lu ñu rocc ci moom waaw dafa am ñu lu ci moom mhm, jërëjëf loolu lan la loolu loolu dafa mel ni moom li ñu dindi ci moom dafa mel ni digganteem ak làmb li taxoon moom muy nekk mbër ci biir làmb loolu dafa denc moom. yow gis nga Balla Gaye del seetaan del seetaan bu ñëwee ci face à face day ñàkk takk ay chaîne di jaxla di taxaw di aalu di wax nga yaakaar ni kii day toj saal bi ba pare buñ ko mu joxe daal buñ ko lakkal rek day génn day joxe daal naan yow sax xam nga lan la cinq minutes laa lay jox wala une minute wala une ma defal la bagaar boo defal ma defal kon. Balla Gaye da dañ ko jàpp comme li nga wax noonu rek yow man mënuma ko wax mais yow wax nga ko loolu laa bëgg a wax mën nga wax yow dafa am mais mais loolu loolu ñu ko jàpp noonu ci wàllu musique bu ci Balla Gaye jógee ndax dama gis sànq nga souligné ne Balla Gaye de war na dem ci sëriñ yoo xam ne mosu koo ñaanal nitu guddi ñoo xam te ne dañuy nelaw guddi ñoo ñoo ñoo mën a dindi loolu koo xam ne du nelaw guddi ñoo xam ne dañuy dañuy passé guddi yëpp di nelaw di wër ñooyu ñoo ko mën a delluwaat lu lu denc ñoo ko mën a jëlaat dellu ko ci moom waaye du du fu mu su ma la déggee mooy sëriñ boo xam ne nii sëriñ boo xam ne day wér di guddi gi ba bët set du nelaw guddi te mu doon nitu yàlla kooku kooku waaye day fekk ne waaye du fu mu nekkoon fu mu nekkoon def nañ lu ñu mën a def mais mun munut bu demee day ñëwaat rek buñ ko dindi tuuti rek day ñëwaat bu amee aafiya tuuti rek bu delluwaat rek ñeneen ñi def leneen mu këppuwaat dañ ko jàpp jàpp bu métti nag. mais ba Gaye Balla Gaye li ñu ko def ci wàllu musique ci ban ci ban côté lañ ko def ci moom. côté bëri côté communication ak lépp dañ ko jàpp dañ ko jàpp xaw ma ndax loolu nga bëgg a laaj wala. waaw loolu laa bëgg a laaj waaw. ñu def loolu ñu def loolu suñu sañoon du ma sa bëri du ma sa bëri. allahu akbar mais nag. Balla tamit mu ngi am lu مو def moo tax ba léegi mu ngi def non buy sëñoon Balla gi dootu bëri wat ci làmb way laay. seen sago bu don sen sago bis buy bëri mu tëdd bis buy bëri mu tëdd mais Balla gay tamit mu ngi def lenen mu ngi gor gor lu bu baakha a baax mais fu muy dem ki wu. foofu fu muy roti fofu la don roti toujours quoi il faut que mu changer. de terre ki sëriñ ki sëriñ yim daan dem fa lay dem ba léegi daf koy jàppale nag loolu mu ngi koy jàppale ba léegi mais dafa war a changer yoon bi bu changer yoon bi bu ñëwaatee rek bu ñëwaatee rek nga xam ni ñëw na mais damay dégg nit ñëpp ci law naan ba léegi combat bi mu ngi ak doole contre Eumeu Sène dina neex loolu parce que gis nga tuuru Balla ak lu muy bëri moo mel noonu Eumeu Sène tamit moo mel noonu champion bu toll nii Eumeu Sène xam nga ni du moom ak Balla Gaye bu ñu bëri il faut coow li am parce que ñun seen bés moom moomel moomel mhm. noonu mais nañuy waxante dëgg Balla Gaye amul doole instant doole buy daan Eumeu Sène amu ko kii galaaj buy daan Eumeu Sène amu ko instant bi amu ko ñuy wax combat muy jël cité ak ñoo ñu koy bugg a wàcc ci xale yu ndaw yi loolu du yoon du yoon na dem defar bu baax a baax na jël temps bu mu yàkkamti xale la mën na waat parce que Balla Gaye amagul 40 ans 28 ans la amoon la 27 ans. Euh, non non. sax ma ne 27 ans la amoon uh, mhm. la Gaye. bu am ans 37 ans yaakaar naa ne la am dama la wax 27 ans mais 37 ans. xalal la mbër dooleem day dem ba 45 ans mu wow dëgër kon. parce que 45 minutes la bari bi du ja du dépasse 45 minutes wala mu jeex. xalal la mun na ñëwaat mais. pour mu ñëwaat il faut mu jël temps ci ñaari côté yëpp na bëri Sénégal def contact bu bëri bëri bëri bëri contact bu tar tar tar ba pare na changé yoon utaat keneen ñu dindil ko affaire bi jëm ko toj dina métti nag dina métti maa ngi dégg sax maa ngi dégg maa ngi dégg nga li nekk ci mu Balla Gaye nañ ko tojtal te loolu sëriñ bi ko tegal day nekk sëriñ boo xam ne mosu koo ñaanal. ok comprendre nga il faut que mu dem ci ñen ñoo xam te ne di ko lu bees ñu ko parce que ñi mu nekkal ñoo koy dumbal ba léegi moo tax mu nekk fu mu nekk ba léegi mais mënuñu dara. léegi mën naa la laaj benn question xam naa ne yow sërif nga mais day dem ci sërif yi wala day dem ci séeréeru ndox yi wala benn day dem ci soose yi wala day dem côté Guinée Bissau ولا دم تقول جيري كي بن خير لنون قلنا من الدنيا من دم تي الشريف من دم تي تنا السنغال أمنا عيني تي الله فوق يا أمن تني دنيو أي شيء دنيو تدقد دنيو نلعب ولا حاجة من لين بس بس كبوم أمن الشريف دائما نهاية فير بس ولا يوي ندم تني تي الله كبوم أمن تني دفع سل لا لو بدي بكون نقول نيان بكون دبلي أي بagage بس بالعين مني سؤال لنا كون بالاغي دي ساني خالص كون سخلي ولا نو نيار بني تريب نيار نيت بني تريب نيو بيس ني خامتني سين كرام نيب غيس نانكو اسكو كومبران نغ فماي واخ امنا اي نيو خامتني نيب غيس نانكو غيس نا خامنا نغ دما بن خريطه نيب كو فو مو نيار كو بوغال كن بون كو راخاسل مو دلوا مو عندي نغ خامني بالاغي نغ غيسات punta ka na ni. Ay dog is kan na kang shagjur niyo. Demando, yo, ni, ni, ni, ni. Papare na. Ya nah, ya Me en tant que en man musuma yakar ne baye nga xel ci mbeuri ci côté balligé numéro 2 li ndax man yakar na ne modlo nga gëna maîtriser ak yeneen mbeuri mais ni mom ni li nga man lamb rek laa xam mais sama làmmiñ bi wax du may bëgg a wax damay dem bu ko wax mais du egg mënuma kii quoi yow seetlu nga loolu mais man ñëpp xam naa leen benn mhm. par benn ñëpp surtout VIP VIP xam naa leen xale yi ngi yéeg tamit xam naa leen xam naa leen mais Balla Gaye foog ma defarwaat bu baax a baax mën na ñawaat mën na ñëw mën na ñëw mais ñëwaat bi de fekk Balla Gaye day defar Balla Gaye ñu bëri ñu bari ñu ngi foofu ci biir foofu noonu ñu ngi koy kii c'est lu muy am quoi lu muy mel dafa. loolu comprendre comprendre ma li nga wax nga ne Balla Gaye 2 ñu bari ñu ngi koy lan. cest à lu muy mën quoi lu muy mën Balla Gaye ñu bëri kii neexu leen ñu bëri. lu Balla Gaye mel ci làmb neexul ñu bëri. te dañoo digir nag dañoo. ndax te dañoo am dañoo mun. dañoo am dañoo mun. Euh, ñi nga xam ne nii bëggu ñoo gis ba Gaye 2. non non ñooñu dañoo am moyen. bari bi bari bu muy def ak victoire yu muy am foofu ci. Balla Gaye gaañ nañu bari foofu yow. Balla Gaye dafa naa ñu bari. dafa ñi mën ñi xam la ñu am ñu ñuul. liggéey yu ñuul yooyu comprendre nga liggéey olof yooyu soose yooyu ak àll ñi ko mën ñooy topp Balla Gaye ne mais moom tamit am na ñeneen loolu moo koy jàppale man ak. non dégguma li nga wax léegi dégguma li nga wax léegi dafa dagg nga ne. Balla Gaye defar na ay bagages ay nit yoo xamante ni dañoo mën te am te xam fu ñuy uti pour yàqal la comprendre nga pour yàqal la sa bis. Mm-hmm. duñ la bàyyi. Mm-hmm. duñ la mos a waxuma yow quoi waxin la quoi ñi mu amal affaire. dégg naa la دين كم صباح إحنا موباي بريدم لقى وينك ب كن يو نيبال لقي أمر أفير دايد بيد مس باي بال لقي دمر ده ده نيو نيو أي لقي بيد مس لقي ده مينك نوت فصل فصل ما يتجلب فصل فلان mooy foo xamante ni nitu yàlla yi waxuma ni ñu ñuul yi bagage yu ñuul yi boobu dafa neex a toj. gis nga ñu ñuul yi dañ lay euh. dañ lay defal bagage léegi naan la bu day am bu yàlla day am. ñu defal loolu dañoo aay mais pour yàq seen dafa yëmbu day. kon Balla Gaye de. waaw kay nit yàlla yi nga xam ne dañuy nelaw guddi dañoo sel dañuy. Wardu xam na xam nga lu may wax bu baax a baax. bu demee xam na ko xam naa ko mais mais mais mais mais tey tey live bi moom daa ala doom bi quoi bi daa man li ma jaaxal mooy naar làmb nee na Balla bu mu ut gàllaaj gi ñuul. non non na bàyyi ut gàllaaj gi ñuul ndax gàllaaj gi ñuul da boo ko bàyyi baaxul gàllaaj bu ñuul kenn du ko mais moom su fa moom gàllaaj bu ñuul daal nee ko toj. moom Balla Gaye gàllaaj bu ñuul kooku moo ko xam nga yow xam nga ni foofu Sénégal. Balla gay galaaj bu ñuul moo ko jàpp ci ñaankat wala xërëmkat du ma wax ñaankat sa xërëmkat mu naan la fajam gis nga lii mhm. yàlla bu bëgg mu am bu guul day am am demal gis nga loolu lu ñuy wax noonu am na ay affaire seetaane ak jinne mais yomb naa yàqu bu ñu dajee ak koo xam ne comme nit yàlla ñooy kopp ko du dara da koy lakk ci saa si sax da ngay indi mu lakk ko léegi nga xamante ni yàlla bëgg na mu am bëggul mu am du am mais nag am na fuñ ko teg yooyu waaxankat yooyu am na fuñ ko teg nag doo bàyyi xar doo bàyyi gàllaaji bu ñëw doo ko bàyyi mais buñ la jàppee foog nga dem uti garab feebar boo gis am na ay garab comprendre nga hmm, feebar boo gis am na ay garaba médecins yi tamit dañoo wute ci xarañ seen yi tamit dañoo moom mu ñëw ñëpp su mën a déggee liy tënk wax ji mooy naar làmb nee na Balla Gaye numéro 2 ñi ko def li ñu ko def. ci galaaj bu ñuul lañ ko ko defee. waaw ci li koy faj. li koy faj na nag ci ñaanu baatin la nekk. jërëjëf léegi nag. dégg naa na léegi nag dégg naa la. maa ngi maa ñaar lay ñaanal parce que xam naa ne da nga war a invité sama xarit bi ñëw dama bëggoon waxtaan ak moom bëgguma jël sa temps yëpp. bëgguma loolu yow yow say waxtaan réew mépp ko bëgg mais mais tey jii waxtaan bi am na solo trop yéen ñëpp dafay neen ko ñaanal naar làmb nit ku baax la yaakaar naa ne nit ku am solo ci wàllu làmb te li muy wax nii lu am solo la te ni ñaa ngi koy bàyyi xel mais tey jii boo amoon balaa ngaa tëj looy wax Eumeu mi nga xam ne moo war a dajeeg Balla Gaye numéro 2 ci digganteem am a Eumeu Sène am na yeneen combat yi nekk ci kanamam war naa bëreeg Balla Gaye 2 Eumeu Sène war naa bëreeg Tapha Tine war naa bëreeg Sa Thiès war naa bëreeg keneen ak keneen ndax làmb mag bëreeg xale da cee am solo tey jii Eumeu Sène looy wax ci digganteem ak Balla Gaye numéro 2. Eumeu Sène amul ah, ma koy wax fii parce que Eumeu Sène am na lu muy am ba pare ci Balla Gaye. te xam naa te xam naa ni. Mm-hmm. du caaxaan combat bi. combat bi daf koy jël parce que am na fu mu koy waaye Balla Gaye Balla na laay a sax parce que Eumeu Sène moom. surtout ma man Balla Gaye laay waxal fu mu nekk nii Eumeu Sène la. defna ba pare confirmé na contre Balla Gaye aller retour comme li nga wax au début mais Balla Gaye laay waxal na dem préparé bu mu nangu bëri bu mu nangu bëri instant bi 2023 bi bu mu ti bëri na dem préparé combat Eumeu Sène nag na ma ñeneen ñi chance comme Sa Thiès bu fekkee ne nangu na bëri ak moom na ko may chance mu bëri ak moom ak Tafatine ak Tafatine man ndax dina nangu bëri ak Tafatine parce que Tafatine man yàgg naa si bëri ñu koy topp ñi nangu bëri ak moom dañu bëgg a euh, prouver rek mais Tapha Tine kay man euh, beneen beneen mbir la nga ndax ndax dañu nangu bëri ak moom Tapha Tine beneen la mais combat bu neex nag dima euh, di dimanche bi kooku kii la lu mu tudd franc sama xol instant bi ci franc la nag quoi parce que franc jàmbaar. loolu loo loolu bëgg ñu bay ba ñaari mbir yi def open de presse ma wona téléphone na la nar lamb ñëwul ñu waxtane franc forza ndax boko waxtane ni du neex nañ ko bàyyi noonu. jërëjëf kontaan na ci yalla la yalla defal jamm yow ngay jël nar ngay jël nar wax nga soxul dara nga di ko invité muy wax ci wax bari ak ñoom mais nak sama droit la parce que man sama sport dama ko bëgg ma lay wax jërëjëf baax nga lamb nuyu ñu waa États-Unis yëpp jërëjëf jàmm jàmm jërëjëf yàlla na yàlla defal jàmm jërëjëf